théâtre radiophonique bi ngeen di ñëw déglu mu ngi tudd yarum internet dëkk bi moom ah, tàng na jër salaamaaleykum ana waa kër gi maaleykum salaam waaw yow lu xew dara papa dangaa jot ak sa yaay jotewuñu de walla dangaa feebar sama bopp bi day métti sama connexion moo jeex démb ay 4 heures du matin. connexion moo tax sa bopp bi di métti. waaw. xanaa sa yaay jëndul la connexion ci suba ba tey. Hmm, sama yaay tey. mu bàyyi la fii ngay feebar. sama yaay tey nee na yorul damaa wax ba sonn. ana ma moom. moom si waañ bi foofu. ndaw. naa am nijaay. na ngeen def. wàcc nga. wàcc naa waaw. in jàmm rek kay. ngeen yendoo. jàmm rek andi saag bi kay waaw. <laughs> bi tàng na tey tàng moom tey moom dëkk bi tàng na lool lool lool lool. masa coono. arikala kay waaw man nee na tuuti bi ma fekkee ci saal ba mu triste nee na dafa feebar ngir ñàkk connexion. Hmm, nee na de loolu de la ma fi xëyee. te maa ngi nii yoruma daal marché bi tey daa dëgër àndaaleewu ma benn weccat. Ah, man de xale yi jaaxal nañ ma. man démb rek laa ko jox junni ngir mu jënd connexion. ah xaaral ma xool daa mel ni de yor naa fi weccet de daa mel ni waaw des na kay am jox ko ma jëndi connexion. may na la jënd connexion. merci beaucoup papa. yaay booy maay dem boutique ba te ñëw. waaw. man daal sama papa bu fi nekkee da noos. nekk si jàmm xaaral jaaraale kam ñoom ay sata sax. entrée. waa kii du nenni. nee na la kay taaramata. naa def. yaa si jàmm. sant bu baax ana sa yaay. muy fa. muy si jàmm. ça va ana Aysata. muy ci biir yegg si. Aysa. Ah. waaw yaay. wuyul nenni. waa nenni. Aysata. na nga def. yaa si jàmm. maa ngi si jàmm waaw moom école rek. moo la seet suul loo ñëw kër ga. waaw gis nga ko de. waaw ah, baax maa ngi nii sax damaa nekkoon si waañ bi. waañ bi xanaa looy def foofu. damay togg xaaral xaaral ma rosi ñëw damaa tegoon dëwlin. togg togg nga wax wala dégguma bu baax. Aïssata maa ngi ñëw damay togg may ma tuuti rek damaa teg dëwlin damay bañ mu tàkk moo tax. dangay togg nga wax. damay togg Aïssa sa cin bi. yaay loolu laay def nii damay bañ mu xew. yow dangaa mun a togg Aïssata maa ngi togg de nee na maa ngi togg de sama yaay mi may jàngal maa ngi togg ne yow yaa ngi door a wut door a wax lu tax sa photo yi du leer sama téléphone dangay sinap ba sonn kanam bi continuer di xëm waaw ah, loolu du dara sama yaay nee jigéen day jàng togg hmm, man di jànguma togg man connecté wu rek bu jeexee mu sax damay feebar ah, sama yaay du nangu loolu sax ay sa ñu lu gën ñetti pot ni nga tàmmoon di def waaw yaay nee na xaaral ma wàññi gaz bi. xoolal vidéo bi rek vidéo bi léegi laa ko téléchargé nii ci buti bi ma jógee foofu xoolal vidéo bi mooy bu bees bi yaa ngi gis. ay nen nag yow daal am na beneen nag beneen nit ki. sañse gu mu sañse bi yépp sañse gu mu sañse xam naa sañse yàlla bitig la dugg. dàll yi. bërëb yu baax yi jaay yére yépp xam nga ko. yow lii mooy sa àdduna. <laughs> xaama wëral la deuxième vidéo bi. baax na du ko jar man. xaama wëral damay damaa bëgg a teel a kii pare. sama Aïcha dellul xool sa cin bi. damay dellu sama papa léegi mu wàcc te damaa bëgg bala moo ñëw añ di pare. Aïcha daa mel ni bu si buntu kër gi bëggoo des ak man de xaama ñëw ñibbi. ankay nee na su ma amee jot dinaa fa ñëw. jaru ko jaru ko ma sa yaay. ko man maa ko def sa man mi di ñëw seen kër. waa kay merci bul merci yaay sama xarit. waa Aïcha ah. sa xarit bi nee na nii lañ koy bàyyi nee nii lay def de soo naaj bu mu génn nii di génn connexion nii lay def mooy waxu lan xale bu jigéen bu toll nii heure bii waroon na koo fekk ci peggu ndeyam mu di ko jàppale nag ci cin bi moom yaayam mooy togg moom du def dara ah loolu moom moom doxul bëgguma ko ci xale de genre yi jarul roy de yaay duma ko roy man dama laa yërëm gis naa li ngay daj si kër gi lool la nag te bu la ci dara jële déedéet bàyyi ma dellu si waañ bi waa dellu dellu nga defaral say pàpp balaa yegg si waaw sama lama yaa ngi toog waaw sama lingeer maa ngi toog de waañ bi fu mu toll añ bi léegi mu pare ay saa ngi ci waañ bi. ah tey de damaa xiif te añ bi naa yéen tey. ah jàllu jéeri di añ ba suur. Mhm. waaye nag jekk sikkim. Mhm. soxla woon naa la. waaye jàmm la. jàmm la du jàmm dama bëggoon nga waxtaan ak miñaan sa xarit. Mhm. ci lu jëm ci doomam bi nenne. nenne. menn mi ñëw ci ay sa. jàmmaa ko dal. mën nañ ne jàmm la du jàmm. xale bi daal li muy poste ci réseaux sociaux yi mhm. rafetul te buñ ko seetaane mën na ñaaw mhm. ah, li nga wax moom xaw na jafe de ndaxte xale yi léegi danga leen di wax dëgg ñu ne la màndu woo loolu dëgg la nijaay mhm. waaye xeetu foto yi xale bii di poste ah boo ci noppee dina ñaaw xoolal ah détoy xale bi moom xàmmetuma ko de moo nekk nii nag nene tuuti bi ma xamoon démb moo mel ni tey menn mi kon nag aysa bi war naa xool ki muy àndal dëgg la nijaay aysa yar nañ ko fiñ ko war a yare te déggal nañu mhm. waaye àndandoo bu bon day wàlle te mën na ko yàq moo tax nag ma bëggoon mhm. nga waslu sa àq mhm. dem ba ci sa nawle sa wóllëre di miñaan nga mhm. waxtaan ak moom ndaxte man mii di jigéen mhm. su ma àqee yaayam mën na ko gisee neneen mhm. waaye diggante góor ak nawleem boo demee mën nga ko indi mu mën a taaj doomam waxaat ak moom balaa moo sànku léegi xam nga la la ñuy def ngay bàyyi ba mu añ boo pare dallu bu kër seddee dinaa dem ci kër ñaan ba après kër ñaan ba dinaa dem ci kër mi ñaan ñu waxtaan ak moom ci mbir moomu loolu de boo ko defee nijaay mhm. sama xol dina sedd mhm. léegi Aïcha dinaa ko wax mu ñëw indil la sa añ nga lekk ba suur mhm. nga dox tànk yooyu ah tey de moom xiif naa Aïcha indi la sa papa mu añ ñëwal yàq yaay añ pare na maa ngi doon lal si biti sax waaw ah, kay entrez salaamaaleykum. maaleykum salaam. Eh, sama taa ngi noonu. góor gi bi ñaan maa ngi nii de. aywaay na nga def. maa ngi ci jàmm bu baax jàmm rek njaboot bi. ah ñu ngi ci jàmm bu baax a baax ñu ngi ci jàmm a baax naka soxna si mu ngi ci jàmm tabaarikàlla mu ngi ci jàmm jàmm rek kay toogal jàmm rek toogal toogal jërëjëf jërëjëf toogal. Mhm. rek kay. ana soxna si. soxna si mu ngi fi. mu ngi ci jàmm mu ngi ci jàmm bu baax a baax kay. ok am na ñu de. nijaay la waraana waa ndéwoo jàmm nga am waa ah, jàmm rek alhamdulilah tabaarikàlla eh, kenn tawatul ñu ngi ci jàmm bu baax mu ngi ci jàmm waa Rama mu ngi ci jàmm mu ngi lay nuyu waa ak xale yépp jërëjëf kay eh. uh-huh. xaar ma may la ndox nga naan Uh, diggante bi sori na. Eh, dafa sori. boole ci naaj bi dafa tàng. tey moom dëkk bi dafa tàng. dafa tàng dafa tàng jër jër jër wallaay ndeysaan wallaay. <laughs> Mm. ay ma sa coono. Ah. man maa meroon. moom kay dafa tàng maroon dafa tàng dafa tàng maroon naa trop trop sax dafa tàng jërëjëf jërëjëf ndaw mhm. waaw ndaxte jigéen mënu la. Mhm. ndaxte musoo changé. yow daal bi mu bi ma dalee ñëw ci kër gi ba léegi yaa ci waañ bi yaa ngi toppatoo monsieur. waaw dëgg dëgg jigéen yi léegi moom war nañ roy ci ci ci ndewoo mi. waaw waaw mi ñaan <laughs> ah man de da tey ma ne xaaral ma ñëw seetsi la. waaw ci prière bi laa jógee nii léegi. dëgg la. Mhm. Mhm. gannaaw bi mu waxtaanee ak euh, sama soxna. dëgg la mhm. waaw ñu déggoo mu yebal ma ma ñëw fii. dëgg la. léegi nag dafa dañoo gis benn photo bi nga xam ne. sa doom nenne. déet sama ah, doom nenne waaw. mbar jàmm gaawee ma bokk. jàmm la jàmm la waaw sama xarit doom sama doom la. moo tax bi ma mhm. gisee photo boobu noonu ma ne xaaral ma ñëw waxtaan ak yow wala kii du nenne eh kii de nenne la ah moom la de waaw lan moo dugal nenne ci biir portable bi ah, moom dong moo fi dugal boppam nenne moo fi dugal boppam moo fi dugal boppam xale yi léegi li li la ñuy def eh, man de jommi na mhm. waa lii lii lu mu ah ñun xam nga ñu ne ay mag leen suñuy doom yi xamuñ ci lan la ñuy dugg léegi nag dama bëgg nga woo ko nga waxtaan ak moom mhm. ndaxte man sax bëgguma woon a wax ci lii ndaxte léegi da ngay wax dara ñu lay xoolee yeneen bët yi mhm. wala ñu lay wax ne yow maandu woo mhm. waaw léegi li nga doon sama xarit moo tax ma ñëw ba ci yow ndaxte démb moo waral tey yàgg naa nekk ci jafe-jafe nga xettali ma dëgg waaye nag dafa fekk ni yow xam nga yàgg nañu dëgg la sama xarit nga ñépp xam nañ ko. Mhm. loolu mënoon nga koo lijjanteel sa bopp. dëgg la sama njaboot. Mhm. sa njaboot la. Mhm. njaboot bi yépp benn la. lii bu amatee. bu ma ko sax yëg. dëgg la ndax mën nga koo lijjanti. loolu bu ci am benn xel ñaar. dégg nga. d'accord ndaxte njaboot ji yëpp ñun ñoo ko bokk. dëgg la dëgg la. waaw gërëm naa la bu baax nag. ci. li liñ ma yëgal. Mm-hmm. gërëm naa la ci bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. dinaa waxtaan ak moom. ok ok jërëjëf léegi man maa ngi ñëw dem. ah waay toogal waay toogal ba ci kanam. ma madame nekkul ci kër ga te Aïssa dafa dem jàngi. ah dëgg la dëgg la dëgg la yitte jamono ji. waaw yitte jamono moo tax wax nga dëgg. Mm-hmm. ah kon ñu def noonu. koo koy jërëjëf. jërëjëf ma soxna si. waaw kay d'accord waaw jërëjëf jërëjëf. te te te te Ndabo. naam nijaay. kaay. toogal. naam. ndew. naam. mbir xew na de. lu xew mbaa jàmm. ah. xanaa suñu nee na tuuti bii. nee na lu mu defati. yaa ngi gis sama xarit lama fii la jógee léegi. waaw moom kay daa gaaw a ñibbi sa moo fi andi mbiru nenn tuuti. ah. na daa dugal boppam ci Facebook xaw ma lu mu doon. ah ci page bi paas internet bi. kon yow xam nga paas. waaw xam naa ko yii wax nga dëgg sax nijaay xaaral ci suba ba tey xooluma nenn lu mu dugal. xoolal lu mu def foofu. waa nijaay lii de faw nga gisal ko sa bopp xoolal nenn. gis ko moo tax ma wax la ko. ah kon gis nga ko lépp lu nen dugg suba ba janta sox xam nga ci dara. déet nijaay bul indi problème du xam nga paas. xam naa paas man kay nee na nee na ma daa am. page Facebook kon da nga gis muy dugal photo yi ma koy gis di aimé waa waaye photo yu baax la doon dugal de lii de maa ngi koy door a gis. nga ci dara. lépp lu mu def suba ba jant so. xam nga ah, nijaay déedéet déedéet bu indi loolu ndaxte nag dañu waxante dëgg nag nijaay. nene yow yaa koy jëndal crédit muy connecté wu suba diggi bëccëg ak ngoon nen na jàppalewu ma si waañ balewul fóotul lu mu bëgg nga jox ko ah déedéet loolu moom duma ko nangu page bi moom damay aimé waaye mosu si dugal genre yi man bu ma defee loolu ngi dama foogoon ni ci lu baax la ciy def waaw loolu moom dëgg la ndax internet bi da ak ka lu baax mun nga ci jàng say leçon def say recherche jàng si ay waaraate téléchargé ko di ko déglu mun nga si sax jàng togg waaye tamit noonu la amee lu bon comme nee lu mu def lii ak leneen. waaw nee kay moo bon bonaayu boppam ñëw tànn simi yaramam bi wane ko foofu waaye xaar nenee kaay. ah sama yaay maa ngi woon fii di def sama direct mu may déranger. xam kër gi bu seddee laay mun a def direct. eh booy reer bi daa pare. ne waxuma waxu reer de photo yi nekk ci sa page bi yaa ko fa dugal walla yow dañ laa pirate. ban page. sa page Facebook bi xanaa. waaw yi ma dugal depuis démb yow gis naa sa aimé go. ne may wax nga may wax waxu aimé. déet bul dóor. mbir yi duñ ko lijjantee ah, noonu. yaay booy photo yaa ngi fii mi maa ko fi dugal kay. parce que man man damay liggéey damay liggéey ci internet bi yow yaa gën a xam ne man mii maa tax ñu xam la yow yaa ngi nii lii dama cee war a fayeeku sax damaa yeggagul fi ñuy fayee ko da ngay eme sa moroom eme moo tax man ma fayee. nen ne nen ne nen yow gis nga li nga def photo yaramu neen dugal ko ci internet bi. sa pooj yi si biti sa dënn bi si biti sa ginnaaw gi yépp si biti àdduna bi yépp gis nañ ko waa senegaal ak ñi si bitim réew mm. ba sa nijaay lama moo ko gis ñëw di ñu ko wax eh. yow xam nga li nga liggéey nii nen na may wax nga may wax ay waxu fayee kook eme eh. nen nañ bëggoon naa ñu waxtaan li ma bëggoon mooy nga xool ci sama doomu xarit doomu lamarana gis nga lu jot lu muy sol te di dimbali yaayam guddi ak bëccëg ci kër gi xanaa mënoo xool ci xale boobu boo bëggee sax ñu dem ci bidiku Moussa mu jëndal la ay robb yu jot nga koy sol papa loolu jaru ko de dinaa changer man xamewuma ko woon noonu sama morom yee koy def rek moo tax ma koy def trois quarts mais trois quarts fan quatre quarts lañ lay ñëwal. lan mooy trois quarts. trois quarts mooy robe yi dëkk yem fii ci digg tànk bi du wàcc du yéeg. kon ñu yéggale ko quatre yi mu yégg ci. dañ koy def quatre quarts mu yégg ba ci suuf. ah ma wax muy waxu waxu trois quarts. nen xam nga lan laa bëggoon nga soppeeku. nijaay lii kay moo tax nene am moyen quatre man boobu ba tey maa ngi waaru di réfléchir di xalaat fan la nene jaar. ba mun a am not yu bon yi ndax nee na ak nu mu muusee ñëw ren rek not yu bon rek not yu bon amul jot jàngul deful dara mu ngi ci posté photo wu lii moo tax mu am moyen kat man kay jaaxaloon na ma nen ne xam nga sama xarit nga loo bëgg maa ngi ciy taxaw suba ba ngoon di la ko defal kon nag bëggoon naa nga soppeeku dégg nga papa baal ma àq ma àq yaay booy baal leen ma àq dootul amati ñàkk xam rek moom ma jàppool baal leen ma àq papa baal nga ma baal naa la waaye daal soppeeku yaay booy baal nga naa de waaye lenn laa bëgg nga def ko ci sa bopp bii connexion matin midi soir jeex na fi suba boo wàccee simeeku dugg si waañ bi toogu raxas fóot bale jàng ko. xanaa dinga ma jàppale. dinaa la jàngal loolu amul benn problème waaye téléphone bi di ci yondu moom jeex na day am ay waxtu yi nga koy yor ak waxtu liggéey ci kër gi ak waxtu jàng. waa baax na comme baal nga ma rek baax na. tegal fii téléphone bi. tey. nijaay. Mm-hmm. neexul ba neexul nag waaye am nañ liggéey de. ndax umpale ah. wu na ne dañoo war a góor góorlu ndax kàddu yàlla gi nee mhm. jàngalal xale bi yoon bi mu war a topp mhm. su demee ba màgg mhm. du dëddu yoon boobu mukk dëgg la faaw ñu lu yaraat nene bu baax dëgg mu tegu ci yoon jubte baax na déglu ngeen théâtre radiophonique bi te ñi ko bind mooy groupe DPTLL di François Bagnon Sophie li Hamadou Diallo Elisabeth John Ning Awoba Augustin Tine Thérèse Diouf ak Elisabeth Mendy